président li mu wax wax nako et je crois que li mu wax aussi c'était mon la mon moy li am li am modi wax na deug gi jaral na nekk ci biir li ku doyul dara dula doy on a un président ambitieux limuy muy ci deuk bi tay di ñep gis non ko. mom jël na ay moyens def ko ci football bi jox na joueur yi lepp li nga xamni tay di at sport Sénégal lu mu lu len war pour ñu am ay trophées et tay dama kontaan si discours bi modi lan coupe wala dara et je crois que aujourd'hui soo amé moyens yi nga am am équipe bi nga am am joueur yi nga am am public bi nga am et je crois que len rek desul lu gagner et joueur yi dañu war jël lolu transformer ko en positif ni tay ji dañuy dem ki kat duñu gëna goré ndax defal nañu lu nekk jox nañu lu nekk aujourd'hui Sénégal desee la tun dara ñu ñoo deseel Sénégal et c'est ce discours là qu'il faut avoir. xex yi nga xam ne yaa leen man ya leen ëpp doole ñu yokk doole boo xam ne pour tollaaj yow boo yokkul sa doole da nga sonal xale yi xam nañ ko waxtaan nañ ci lima la naan man yàgg na ci équipe nationale mais cohésion bi groupe bi ñu am mosuma gis ñu am lu toll noonu donc yaakaar naa ni dégg nañ message président wa jël nañ seen responsabilité parce que ñu ci ëpp aussi nag ñu ci bëri seen dernier kan la nekk am nañ mérite boo xam ne yaakaar nañu bii mooy la bonne te bu ci ñëpp ànd xool yi nekk benn ñu ñaan yàlla ànd ko seen ci ñu Algérie amoon ba dugal nit yi boo xam ne kenn xamul fu mu jógee yàlla ñu ci mën Sénégal uni parce que joueurs wax donc